يا أئمة الشيخ هدري لنا بهذا المهضر ولتأتفي بنظرة تأتي لنا بالسفر daara taal alfadli asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu jiital si nuyoo bi Seydou Mawlaaya Ba Ousmane ak mboolem koo xam ne yaa ngi ci biir daaratul fadli ñu ngi sunu darsu juróom-ñetteel ci miftaaxul wusuli ila adrati rasuli sëriñ bi li saydi wa mawlaaya cheikh alxaaji xasan dem ibnu muhammadul fuuti radiallahu anhu nee na man saxa isnan wa tariqu suqarar bi yeddihi yuxasu aysu ma adar mu ne maanaam ki nga xam ne mooy joxe wirdo wi mooy muxaddam bi bi nga xam ne isnaadam wér na kooku la bëgg a jàngale ci baytu tay bii mu ne man saxa képp koo xam ne wér na isnan ci ndigal mooy am na ndigal isnan saxihan boo xam ne dafa jokk ba ci Cheikh Tidiane radiyallahu anhu nga xam ne sëriñ yëpp wér mu ne nag képp ku xam ne am na loolu mu ngi lay xamal ne wa tariqu zu mu ne tam nekk ci yoon bi ba seytaane wor ko ba saytaane këf nee na bu ko loolu dalee la wax ne yu xasu def na jàpp moom Cheikh Tidiane radiyallahu anhu bi di ci loxoom mooy muqaddam bi nga xam ne am na isnan saxihan bu taraxeesee ci yoon bi Cheikh Tidiane moo koy dabaatal bi yeddi inaayatillahi tabaraka wa taala suma azar fu mën a fakkastaloo rek Cheikh Tidiane dina ko dégg nga gindi yéex ni cor na nee na ci woy wi ne man axasa ku jàpp xaadal wirde asharif mooy wirde wi foor wi bi isnin saxihin ci ndigal lu moy mu jàpp ko ci ndigal lu wér képp koo xam ne jàpp na wirde wi ci is isnan saxihan hmm? in salla bu tarxeesee xadamuhu ndëggoom aw xarruhu wala wor ko boog ashaytaanu aw xalabu wala noot ko xawaahu bànneexu ba kanam wa tamu ta bëgg a suquuto wadd fi mawaaqiil alaaki ci barab yi nga xam ne day alak nit ki taalibi bi hayzu maakaana fu mën a nekk hmm? fi aqtaaril ardi ci suuf si laa wax wa ak guddi dëkk yu gudd yi wa ardo ak yaatuwaay suuf tadaaraku dana dabaatal ko sidna Cheikh radiyallahu anhu Cheikh dana ko dabaatal nu mu koy dabaatalee nag <clears throat> mooy eh, wa jabaruta dina itam bi inaayatillaahi ci jagleelu yàlla taala yàlla mu kawe mi bi himmati ci hitteem moom Cheikh Tidiane radiyallahu ndax bul fàtte ne Cheikh Tidiane waxoon na ne immatul insaan xaa'iratun ala jamil akwaan walaw talaba maa wara al arsi lana laha mu doomu aadama xajul ci dara mu ne bu sàkk on loo xam ne gannaaw aras la nekk sax laa budda mu jot ko kon doomu aadama moom la yàlla fonk moom la yàlla teral wala xad karam naa bani aadam wa xamalnaahum fi lbarri walbaxri warsaqnaahu min atayyibaati wa faddalnaahu ala kasirin ni man xalaqnaa tafdila dégg nga loolu la yàlla dégg nga wax ci alquran yàlla moo terale doomu aadama noonu kon dina ko dabaatal ci xitteem nag ala aaliya xitteem yi nga xam ne dafa yëkkatiku al basiita ba nga xam ne dafa yaatu fi rububati rahmaani ci rububiya gaamum rahmaan la mooy ci pays rahmaan mu ne kayfa ndaka laa mu ne loolu yéemi wut loolu noonu nga xamante ne mooy dabaatal gi Cheikh Tidiane radiyallahu def si muqaddam bi nga xam ne dafa tarxiis mu ne loolu yéemi wut saalika loolu wa zayduna wa zamsul mooy jant bi a aji fenk min samail xaqiqi ci asamaan si nga xam ne mooy asamaanu xaqiqa dëgg-dëgg te boobu asamaan mooy ban mooy xaqiqatul muhammadiya ndax ahmadiya moo génne ci muhammadiya <clears throat> ahmadiya mooy Cheikh Tidiane Mouhamadiya mooy xaqatu dégg nga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne woon nuuru albasit mooy leer gi nga xam ne dafa tasaaroo fi zamdaniya ci pëyu samdaan samdaan maanaam chiqatul mubaalaqa la ci zamadu mooy pays jublu hakkoon borom bi al uluhiya wal baxri al masjuri mooy géej gi nga xam ne dafa fees teb al madidi bi taalalu fi martabatil adratil aliya ci martaba baa moom adra yàlla bu kawe bu kawe bi bu foor bi mooy xadratul quds indal maxqi siwaaha laa siwaaha yaa man yuruumu liqaa ni ko bàyyi ñes radiallahu anhu waxee mu ne waloo ñeel na ko quwatun ak dëgër alxaaira ba aji not kattan goo xam ne dafa not lépp wa himmatun ak yitte ali aji kawe itte yoo xam ne la naafisatun yoo xam ne dañuy wéy dañuy continuer daa iman duñu taxaw mukk la aduna faasil bizaatil axsam ci tàllalu waaye tur yi bi tur bu màgg bi wata jëli te mooy feeñuwaay al akbar ba aji rëy mooy feeñuwaay bu mag bu yàlla bi wali zalika ngir loola taxawumu azirru al wahid moom Cheikh Tidiane mooy secret bi nga xam ne mooy sirru bi nga xam ne kenn la dafa wét fi rafin wala wadaay ci yëgati ak wàccee dégg nga moom mooy ak xafd ak mana mooy suufeel ak tere dégg nga rafon ak a ñoom ñaar ñoo safaanoo dégg nga alxafd ba tey maanaa la ci wadaa rek wal mana wal xataa ñoom ñaar ñoo safaanaantoo mooy joxe ak xañe euh, mooy tere ak joxe ñoom ñaar ñoo safaanaantoo wa radd wal xubul delloo ak nangu ñoo safaanaantoo kon nga xam ne Cheikh Tidiane radiallahu anhu moom mooy xalifatullahi fil ardi dégg nga maxaamaam boobu mu taxawee nga xam ne dafay wuutu fépp fu yàlla nekk yàlla rek moom mu taxaw fu nekk xalifa dégg nga nga xam ne yàlla da koy tëbb turam yi nga xam ne mooy rafon ak al xafdu ak manol ataay yooyu nga xam ne ismun la ay asmaa yoo xam ne ci turu yàlla yi lañ bokk mu ne wa muriduhu taalibeem nag radiallahu anhu moom Cheikh Tidiane fi xabdatihi bayna yadayhi daiman taalibe Cheikh Tidiane mu ne mu ngi ci himaaya Cheikh Tidiane maanaam mu ngi ci kaaraangeem daiman kon nag corna nee na wamin xunaa ci fii nag yëzhëru lay feeñe li ahliha si ñeel bii tariqa na an na akbaral awraadi na kay gën a màgg ci awraad yi mooy wirda yi wala asukaari ak yi ñuy zikar fi xaasi tariqi ci tariqa bi almaymuna bi aji barke wa maarifatu seydna radiallahu anhu mooy nga xam Cheikh Tidiane radiallahu anhu fi hadratil ilahiya ca payu yàlla al ilahiya ndax gis nga ko bam nekkee ci hadratul ilahiya da gis ne yàlla da koy të tëbb turam yi mooy rafu ak wadool xafdu ak yaa ngi dégg manool ata ak raddul xubul yëpp yàlla da koy tëbb ndax moom mooy xalifa yàlla ci suuf si kadrati ilah wa mahabatuhu bëgg ko li annahu naka ma huwa zuuratul askaariha moom mooy melokaano tudd yi wa aynu awraadiha mooy jëmmi wirda yi moom Cheikh Tidiane dégg nga nga ne yow mi wirda nga teewlu ne sóora bi ngay wérde kooku Cheikh Tidiane la jëmmi wérde wi itam moom la mu ne boo xamee loolu rek moo gën a secret bi gën a màgg ci tarixa bi mooy loolu corno nag ne wa an nii naka man ataziru maa ngi ñaan ngantañ lu maanaam maa ngi jégalu bi kitaab yi sama téere haza bi àndal waaqifina ñi nga xam ne dañuy taxaw min wara isotihel bahari ci gannaaw tefesu géej gi mooy ñi nga xam ne eh, xamuñ xam-xam maharifa bii muy wax mu ne mu ngi jégalu ci ñoom Mm-hmm. buñ gisee téere bi wa xaatibu mu ne maa ngi waxat nag xawaasu rijaali ñi nga xam ne ñooy góor yàlla yi xaasi góor yàlla yi nga xam ne alwaasilina dañuy yegg fi jasiratil xaqiqa ca xàll baa mu xàllu xaqiqa la allati ba nga xam ne bi wastil baxri nekk nañ ci digg géej mooy xam nañ mën nañuy xuus jàll mën na ne jàllale keneen waaye waxul nag ñi nga xam ne bu ñëwee mënuñuy dugg ci biir ndox mi waxuma di xuus parce xamuñ sawq bi ci maxrifa boobu mu ne wasaaxadoo te ñu gis nag xiyaamul jazira mooy góor yàlla yi nga xam ne gis nañ dëgg-dëgg li nga xam ne mooy bergende ba moom xàll maxrifatu billaahi la waxaata boo ñi xaati bante mooy ñi waxante nisaul xaqiqi mooy jigéen ñi nga xam ne dégg nga jigéenu maxrifa lañ te nag waquuli tañ wax lahum ñeen leen ñoom jigéen ñi wa xitaabi ak xitaab sama ilayhim jëm si ñoom na leen fa mahabatu saydina mooy bëgg Cheikh Tidiane radiyallahu yem elmu alamu tariqa alamu tariqati maanaam mooy drapeau baa moom tariqa la drapeau boo xam ne dégg nga dafa leer naññi wa faydiha mooy bëbbug tariqa al faydu mooy luy bëbb loo xam ne dara mënu ko arit loolu mooy faydu nee na wa taraqi te itam ñoom ñooy yéege ci maqaama hi fiyaa ci moom al manabirul li manabirul xaqaiqi ñeel min bariyaa moom xaqiqa la dégg nga wa suudu ak li ala darajal maratib ñeel gën ngaay kawe ci ay martaba dégg nga mooy ñiy yegg fii nii mu wax ci digg géej ga moom géeju maxrifa la mu ne wa manazilil maqaamaati ak manazil yaa moom la ay maqaama dégg wa mahabati sayidina radiallahu anhu mu ne bëgg Cheikh Tidiane wa mahrifatu ak xam ko yéemu aziqatul kubra maanaam tëggin la turu yàlla wu mag mooy ismullahi al azam firdaasi tariqa ci wirda tariqa bi razaqana allahu alkamala fi mahabati sayidina radiallahu anhu yal na ñu ñu xam bëgg bëgg bëggu mat ci Cheikh Tidiane radiallahu anhu ñu xam ko itam maarifatu nañ ko xam waaye siraaku fiihi ñu lab ci moom wal wal timaasu ala dawaami abadan mooy ñu effacé wu ci moom jeex ci moom takk ba ñun dootuñ am buñ gisati na sañin am nañ jeex ci Cheikh Tidiane radiyallahu anhu mu ne loolu ismullahi laxasam la dégg nga ci tariqa bi ala dawaami abadan dégg nga daa iman toujours abadan dafa amin allahuma salli ala sayyidina muhammad wa sallim alhamdulillahi rabbil alamin abonnez sur notre chaîne Dahiratoul Fadly Dahiratoul Fadly kuñ fa nommé war ngay sant yàlla ñun lay digil gëstu loo doon si di baram